asalaamaaleykum mbokk internet référence ak ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam bi santam waaw comme ni leen ko waxee woon rek tey ñoo ngi ni seen émission waajal tabaski nee naa leen waajal mooy émission bi nga xamante ne nii day dugg fépp foo ne nii dañ fay jaay yi nga xamante ne dañ koy soxlaa moo tax tey rek comme ni ko gisee nii ñoo ngi ni si marché Tëngéej bi ngir rek ñëw xool see li nga xamante ne nii moo di tissu yu nekk tendance waaye itamit tailleur yeeg yi nga xamante ni ñoo di pose ndax ku wax rek tabaski boo waxee xaat ba pare di nga ne tissu ndax xale yi jigéen ñi ñëpp dañuy jóg wuti marché bi tey nag dinañ dem ci ñi nga xam xamante ni ñooy daay tissu yi ndax rek xale yi jigéen yooyu yëpp dañ koy daa dee soxlaa donc lu ñu def dara lu dul suñu caméraman daf ñu daal di topp ñu dugg ci biir marché bi ñoo ngi nii ci marché bi macha allah boutique nee naa leen macha allah boutique la boo xamante ne nii bu nekk ci Tëngéej kenn dootu ko présenté ti ndax lépp rek luy matériel am na ko ñu ñëw nag tasit fi ki nga xamante ne nii moo di Yacine mu nekk moom tamit nit koo xamante ne kenn dootu ko présenté ti fii ci Sénégal ndax gis nañ ko ci pas mal de série ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ñu waxtaan ak moom Yacine. ziar naa leen sama sëy. waaw yaa ngi si jàmm bu baax sant yàlla bu wér a wér a ñu gis la si macha allah boutique lan nga mën a wax ci boutique bi. waaw tubaarikàlla macha allah ndax olof dana lépp ñëpp ku nekkaa nga ca ndax tëngeej bu amee lu mel nii suñu fierté la suñu mbégte la ndax ñun moo ñu ñor li ngay daw di ko uti marché asalem di ko daw di ko uti Sandaga tubaarikàlla boo ñëwee ci fond rouge bi da nga ko fiy fekk muy lu baax muy péex muy boroode tubaarikàlla lu ñoom. sëñ leen di fay soxna si di nuyu maanaam mboolem waa tëngeej maanaam boo déggee tëngeej maanaam li fi bi sasoo moo tax ñu naan Tëngéej waaye dañuy nuyu àdduna nuyu Sénégal yëpp waaw di leen nuyu yéen tamit di lu liggéey bu baax a baax. macha allah am na solo ñu nekk ci wàccaayu tabaski gis ne bu ñu nee tabaski rek li ñuy njëkk a xalaat après xar mooy tissu voilà ñu gis boutique bi macha allah comme turam wuyu na turam ñu gis ne yéen a ngi jaay ay tissu yu rafet tissu yi mën nañ xam yan moo nekk tendance instant bii nii ci tabaski bi. yan tissu ñoo nekk euh, au waaw ji nga boo xoolee macha allah moom xam day xool. maanaam ki nga xamante ne moom moo njaay day dem day dem mu lu koy jaral mu génn ba dem à l'extérieur xool lépp loo xamante ne ay nouveauté la mu indi ko fi lépp loo fa gis rek nga gis ko mu doon ay xeetu tusi yëpp danga koy gis ne ay ay ay mooy niveau ay lafaya yi nga xamante ne moom la moom la jigéen ñi xewal léegi mbaséris jasneer yi nga xamante ne maanaam top niveau la maanaam da nga ko fiy gis tamit li nga xamante ne ay tusi xew la tu sañse lépp ay voile fële rek ñi nga xamante dañuy oote si suñu jigéen gis nga léeg-léeg événement tabaski bu jotee dañuy oote nga gis am na am na fi yoo xamante ne ay design yu yu rafet lay àndal fële rek yu yu doy waar. léegi ban si moo génne ci tabaski bi nga xam te ne xale yi jël nañ ko macha allah. waaw li mu maanaam tissu yi génn moom su ma la ko man su ma la koy limal fii dina bari lool parce que lu mel ne ay lafaya parce que bari na ay til til sañsa am na fi til perlage comme til galas ma la wax nii léegi ah ak maanaam daa bari na trop macha allah daal tissu yi fi génn daa bari na trop. waa tabaski bi nag tissu yi gën a nekk tendance mooy brodé lafaya jesner euh, tuuti tuuti mais li si gën a bari daal mooy brodé bi ak euh, lafaya bi moom nag nit ñi gën a jënd. yii yëpp ay lafaya la yii nii yii nii 25000 la yii yëpp ay lafaya yu 25000 moom daal mu ngi déparé 15000 ba jëm ba 100000 lii yëpp ay lafaya la. 100000 Lafaya moom kawe na di am na am na 15000 ba 100000. daa riis rek Lafaya moo riis rek moo am solo moom. moo génn daal ci tabaski. moo génn tabaski ji moom koo sol moom mel na ni bokk ko moom mel na ni tabaski woo. waaw ren moom ñëpp a moom. ah bu ñu wàccee ci marché bi ba léegi fu ñu tourné Lafaya Lafaya la ñuy wax. moom laay commencé jaay moom laay jaay ay nuraale ay Lafaya rek laay jaay ay nuraale moo tax ma xam ne ren koo sol ku ne tabaski woo. Ah, kon tabaski bi ren naw na ala daw. couleur boo si bëgg am couleur boo si bëgg am na. pour mag am na pour xale. am na pour mag am na pour xale. yàlla nag col yi mooy pour mag waaw yii mooy pour xale yi yii yëpp xale mën na ko def bu nekk mu ngi def 5 mètres solo ba jekk. Graaf à Lafaya moom ñëppay solo ba mu rafet. Lafaya tamit man man njaga man tey maa jënd Lafaya. ah Lafaya bi dimbali nañ de ne moom laay jullee samay doom moom la ñuy jullee sama sama goro moom lay jullee. sama yaay moom la jullee. Eh, lii seen kër nan la saf la fa yaale. xool dañoo jël paquet xool bi teg ko ne dañoo bëggoon changé mbasin ba sonn amuñu lu ko changé. tey la fa yaa ngeen gis daal moom ngeen. ñu mu ngi noon daal. xool prix bi prix bi daal abordable na. abordable na 15000 francs sax boo ko amee def bu mu baax moom moom macha allah moom. kontaan ngeen daal ci la fa yaa. kontaan nañ kontaan nañu torop torop billaay marché moom mu ngi ne macha allah boutique moom lu nekk fi ne bu sax leneen loo bëgg. boo ñëwee da nga ko fee am moom dimbal jaboot la moom. prix bi fan la toll prix prix basin yi. no pris bi moom mën naa ne yomb na ndax instant yi ñun dañoo wàññi lépp ci promotion lañ nekk. Mhm. léegi euh, mètre jésne mètre basin ñaata la. mètre basin man nañ la ko jaayee 4000 ba 3000 francs. tubaarikàlla lii nekk marché asalem nekk Sandaga tubaarikàlla moo nekk fii kon prix bu arabe bu yomb fii la am. ku ñëw macha allah boutique da ngay solu ba mu neex sañse ba mu neex tubaarikàlla. daal loo am sañse. loo am sañse yow ñaat téeméer nga sañse 3000 nga sañse 5000 nga sañse xanaa suñu prix ngi yéeg. mais clients yi ñu mbaa li ngi ñëw bu baax a baax wala dañuy xaar deuxième moom. ah non macha allah te clients yi ngi ñëw bu baax a baax ñu ngi ñëw bu baax si kanam tuuti rek mooy loolu kenn dootu fi xaj. maa la ko wax. d'accord léegi euh, yéen tailleur yi ñu ñëw tuuti si tailleur yi yéen est-ce que doo leen am ay problème ci tabaski. bien sûr parce que ñaw yi day bëri ba pare parfois courant yi day coupé ah, ba pare doo am temps ba pare aussi tamit tabaski bi nu mu ñëwee moment bi ak événement yi fi jot a jaar ak yooyu noonu day yéexal liggéey bi. yan façon tissu ngeen di faral di ñaw ak instant bi client yi yan tissu lañ leen indi. ah instant bii ñu toll nii ñu ngi si lafayaay jasneer yi ñoo ngi fi ak yeneen xeetu tissu yoo xam ne ay vaal comme xale jigéen yi rek. yi nga xam ne ci lañ nekk di sajj pour préparer quoi. Euh, tamit yéen ban yéen tailleur dañuy faral di gis ne bëggoo leen événement ngeen di ñëw ay ñaw per per laa ñaw bu bëri ay per lu waral lool. c'est que ñaw bu bëri ay per moom day dalay dalay dalay paralyser lu bëri parce que dafa yéex aussi day jël day jël presque temps bi yëpp mooy loolu moo tax des fois doo si xaw a sawar mooy loolu parce que. tabaski ren bi euh, yan ñaw ñoo nekk tendance xale yi yan yan ñaw lañ leen di gën a indil li leen ko jox seen modèle. waaw xale bi ni ma la ñooy léegi moom da ngay travail rek soit nga jël tissu mbasin garnir ko wala nga jël ko jour ko travail ko si teen ba mu rafet wala comme garniture yi xew léegi rek moom mën nga si travail ba mu rafet. waaw actuellement nii moom boo xoolee li gën a nekk tendance mu ngi bokk ci ay val brodé mu ngi nekk ci ay lafaya ay brodé pirxe jesner daanaka xale jigéen daal bàyyi ñu dara ren moom perlage bi lañ gën a ñeme sax. ndax boo leen xoolee seen ñëw yëpp danga naan nax ñi dañuy xew kon nga xam ne xale yi ñu ngi koy pare bu baax a baax sax. dañuy faral di dégg ne yéen tailleur yi da ngeen di bañ tissu yu bëri per ndax da leen di xaw a tardel lan moo waral loolu. tissu per moo neexul ñëw gisoo man bi ma si doon ñëw léegi nii rek presque noonu laa ci sonne da ngay ñëw di toj ay toog lu ne te xale jigéen nanguñu fay ñu nàcc koo ci ne vingt cinq mille trente mille muy jooy. te tisi boobu mën nga si yendu si ngoon ci benn ñaw xam nga loolu arrangé wu ñu boo yore. léegi bu ñu comprendre tissu yi amul per ak tissu yi am per yi am per moo la la paiement bi di gën a yokk kay amul per. waa loolu mooy problème bi tey jii mën nga ñëw jësneer ñu fay la si trente mille nga ñëw tissu per ñu bëgg la si fay vingt cinq mille te xam nga ñun dañuy sédd tamit suñuy clients yi nga xam ne dañoo yàgg ak ñoom. tey ba dara dul dara yaa leen di ñëwal kon tey bu demee ba tollu fenn fi ak lu mu naxar naxari bu ñëwee foo nga satisfaire leen ndax ànduñu ngir événement événement bi lay jiyee après dañuy àndaat loolu moo waral léeg-léeg dañuy nangu sax jël ñaw boo xam ne mënuñu ko ñëw ndax tey jii mënoo di ñëwal nit chaque jour mu dem ba fi mu amee xaalis xam nga fan la amee xaalis mu ñëw nga gàntal ka ndax doo xoolee maman yi si ginnaaw fi si fitna lañ nekkoon am maam ba léegi nii sax ñaw looguñu ñoo ngi yor seen ñaw bëgg ku leen ko ñawal ba ci ëbboo mi am na client yu bëri bëggul bëggul am ak ñoom fu ñu ak ñoom leen euh, gàllankoor bi da leen mujjee résister li ko waral problème bi jàll la quoi te ci am na ci jafe-jafe tamit am na ci jafe-jafe bu baax muy jafe-jafe bi mooy lan mooy c'est-à-dire que pression bi ñuy liggéeyee maam day metti waaw mënoon na man nekkuloon problème bi fi jot a am pression bi amaana maam du demee nii teg ci maam tamit dinañ gën a gis suñu bopp si événement bi. waaye événement ren bi moom wax dëgg yàlla ñu duñu duñu nëbb quoi maam war nañoo xoolwaat maam ñu ñu jiitee war nañoo xoolaat bu baax maam lu mel ni bañ a amati quoi du si ñun kase téere de problème bi maam ba ci ba ci ba ci ñeneen ak ñeneen yëg nañ problème bi daal yëg nañ problème bi problème fi xew daal maanaam day ralentir euh, yéen li ngeen daan am dafay xaw a wàññeeku tuuti tuuti ndax conséquence bi lool. exactement noonu la demee nag maam li fi jot a jàll moom wax dëgg yàlla laal nañu bu baax a baax a baax a baax laal bu baax. a mettil tamit ci côté tailleur yëpp loolu ci la bokk parce que tax na nit ñi ragal ba ñaw yu bari dernier moment la ñëw fi mu toll nii clients yi bari mer nañ parce que da nga leen di gàntu soo leen gàntoo ñu ne teel ngaa baare teel ngaa def nii parce que dañoo yéex a ñëw waaw loolu moom génn bu baax a baax a baax si tabaski bi génn si bu baax a baax. léegi yow ban message ngay lancé ñi nga xamante ne nit ñi ñoo di ndaw ñi nekk ci réew mi. ñu jàmm parce que jàmm moo gën lépp lépp lépp léppi doomu aadama si jàmm rek lay kii. ndax Serigne bi ñu ko laajee jàmm lu ko gën dafa taxaw lu yàgg daan na gisuma ko fii gisuma ko fan jëm kon jàmm mooy lépp man gis naa ni tamit li ko waral mooy jot jot jeunes yi léegi dañoo am jot te jot su amee lu riir rek dangay riir topp si mais ñun ñi nga xam ne dañoo nekk fii di liggéey ak suñuy apprenti yàlla def na ni amuñu jot boobu parce que ñun mënuñoo génn di xeex mënuñoo génn di sànni ba pare li ñuy yàq aussi tamit sunu alal la li ñuy yàq sunu alal loo xamante ni kii fi nekk daf fi nekk pour quelque temps su fi jugee keneen moo fi nekk kon tey ji yow soo yàqee rek sa bopp nga yàqal waaw su ma sañoon daal jeunes yi ñu occuper dara parce que nit ki boo occuper dara dana la permettre yu bëree bëri boo koy yëg après nga koy yëg. képp ku yëngu rek affaire bi laal na la waaw loolu la daal. léegi ban message ngay lancé ñi nga xamante ne ni ñooy ndaw waaw ah ñu gën a góorlu rek te xam ne ñun Sénégal laal yi ñoo ko bokk xam nga kenn mënu koo xar ñaar waaw. loolu daal. macha allah léegi ñu bàyyi la nga joxe sa mot de la fin ak li nga xamante ne nii mooy moom ngay wax sa ay clients. waaw man maa ngi nii instant bi laa nii gaz gazilo nekk réparateur machine Futurifisque xam nga di defar laa ni machine yëpp. booy booy xam nga rek daa am lu ñu bëgg quoi boo gisee yu bari noonu yëpp booy daa am lu ñu bëgg Sénégal xam nga dafa xaw a métti quoi gën a xam moo tax booy instant yi bëgg a liggéey am na ñoo xam ne yaa ma gën a xam ñun daal moom ñu ngi gis suñu bopp si atelier bi parce que yàlla nekk ak patron bu baax luñ bëgg moom si lay dox ak sëñ Touba Mbacke billaahi. léegi eh, problème boobu yéen impacté leen yéen li ngeen daan am yëpp yéen a ngi am correctement. saa yi nii waaw naa yas saa yi moom waaw. waaw clients yi ñu ngi ñëw mais bi ñuy waajal moom tabaski moom clients yi xawoon nañ raat tuuti quoi parce que affaire manifestation yeeg yooyu mais bi ñu demee bi dugg si biir nag ñoom ñoom nag dañoo jugandoo. looloo tax daal mais sant yàlla daal. sant yàlla bu baax. waaw ñu ngi gérer ñu ngi gérer moom. instant bii nii yéen yan façon modèle ñaw moo nekk au top yan ngeen di faral di ñaw ak client yi leen di proposé lu bëri. ñoo instant yi nag tissu yi nag comme tissu perlage jigéen ñi jël nañ ko si événement yi waaw ax lafaya waaw waaw jesner tout genre daal yëpp daal ñu ngi koy ñëw mais surtout ay lafaya comme genre lafaya tissu perlage yi yooyu noonu ak tissu PC yi daal yooyu daal dañ xaw a jël daal ci tabaski bi daal salaamaaleykum papa nuyu nañ la. ñu ngi lay fay waaleykum salaam. waaw yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. maa ngi ci jàmm bu baax a baax. ñu gis na yow yaa ngi jaay ay mbarakis yan façon mbarakis ngay jaay. man marakisu ngaay laay jaay daalu ngaay waaw. ngaay kese ngay jaay. waaw daalu ngaay laay jaay waaw. d'accord euh, client yi ngi ñëw wala. waaw xam nga daalu marakis nag moom daa nekk rek moo xari ñooyam. daanaka dañu nit ñi Sénégal dañu dem ba dernier moment rek ah, ñuy door a ñëw xay na nag ah, tabaski gi moom dana tuuti rek dañ ci teel a ñëw ndax ñu bari xam nga dañuy génn xam nga fii ñu bari dëkkuñu fi dañuy dem ñu dem dañoo teel teel a dem kon donc ñu jaay ndànk-ndànk mais nag a jaayee dëgg-dëgg moom jaayeeguñ ko noonu client yi ba yan façon mbarakis lañuy faral di jënd yu baax yu xale wala wala walay mag waaw fekkete ne nii comme tabaski yi ñu nekk nii dañuy jënd yu mag dañuy jënd yu xale mais nag yu xale yi ñoo gën a kon xale yi ñoom dañoo bëgg rek di solu solu cosaan comme ñoom ñi ngi doog dugg ci Eh, Sénégal te ñoom ay sénégalais lañ il faut que ñu ñëw Marrakech daal dafa mel ne ñoom par événement rek lañ koy sol bu paasee jaax na mais mag bu ñu dem juma bu ñuy dem ci ceet bu ñuy dem ci takk fu ñuy mën dem gënte yëpp moom lañ sol kon toujours ñu ngi koy jënd li ëpp ci ñu koy jënd daal mu gën a dox yu ndaw yi moom moo gën a kii parce que ñoom par événement rek lañ koy sol nee leen ku bëgg ongle bu rafet sil bu rafet wala tatouage fii moom ngay ñëw ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ñu xuusal waxtaan bi Thierno. waaw ñu ngi lay ziar la si. waaw yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu wér alhamdulilah ngi sant. seen émission waajal tabaski waa ñu xam ne nag yéen yéen a yor li nga xamante ne nii mooy wàllum pose beeg yooyu noonu euh, ñu laaj la rek yow yan façon sil ngay def ongle yooyu noonu. waaw sil sil yi ongle yi de loo may laaj nii li sama liggéey la ko li ma ci li may laaj nii naa ci sawar parce que li sama métier la def naa ci ay ati at am na lu ma ci xam am na lu ma ci maîtriser nag waaw du ma ne maîtriser naa lépp ci àddina bi mais am na lu ma ci maîtriser. waaw événement moom ñun moom fekkee nañ événement yu bari te événement mënatul rëy suñu liñ ciy wax mooy préparation bi rek xam nga comme niñ ko daan defee lañ koy defee rek clients yi xam nga préparer utal leen sil euh, yu baax xam nga préparer leen produit yoo xamante ne pour lu leen satisfaire daal lu sedd seen i xol. loo xamante ne macha allah bu ñëwee fii seen xool dina seet daal. mooy dañuy def cils ongle permanent capsule am nañu ñu euh, nañu ongle permanent yi en plus am nañu ongle gel lépp dañ koy def daal am nañ tamit émail simple yi tamit dañ koy def lépp lépp la ñuy def. am nañ silu cheveux am nañ silu seen tig yow yaay xool rek xam nit ku nekk ak dooleem fi mu toll fa lay demee parce que loolu mooy àddina bi àddina soo ba léegi loolu fi am nit ku nekk sa doole fi mu yem rek noonu ngay liggéeyee dem sa yoon quoi. am na simple bu dee simple bi 2000 la. bu dee silu original bi 5000 la am na silu extension am na make-up original tatouage original am na ongle permanent am na ongle simple am na ongle gel fii fi daal maanaam lépp fi am. make-up original bi prix bi ñaata la fan la commencé. make original sans dépend bu fekkee ne da ngay def un an am na un an am na six mois am na à vie prix dafa varié bokkul daal. à bi moom ñaata la. avis bi moom euh, cinquante mille la cinquante mille lañ koy deferee cent bi. prix bi gën a ndaw deux mille la trois mille cinq mille. yooyu daal moom. ongul tamit noonu la am na cinq mille am na deux mille am na trois mille yaay xool rek yow li sa doole attan rek nga def ko. yan façon ongul ngeen di faral di. waaw ongul yi am nañu mooy li limal li sànq mooy permanent bi am na am na capsule permanent am na permanent direct tamit am na am na am na tamit simple am na tamit euh, gel yi. gel am nañ couleur yëpp am nañ couleur transparent am nañ couleur ci euh, nit bi am nañ lépp. d'accord wax nga ñu ongles wax nga ñu si li léegi mu des crayon bi ñu gis ay crayon rafet ngay def macha allah yan façon ngay def ak euh, ndax da ngay def yu un mois yeeg six mois yeeg yooyu. waaw dama koy def mooy ongle permanent bi euh, kii li mu tuddati crayon permanent dama koy def am naa bu un an deux ans trois ans ba quatre am naa ko cinq ans sax am na waaw si. am naa tamit boo xamante ni boo ko defee mu defee une semaine day dañ waaw. d'accord ñu gis ne daal yow yi ngay def yu macha allah la nekkul da ngay def rek pour quelques jours mais am na boo xamante ne nii mën na la durer ay at. waaw am na boo xam mooy bi ma la limal noonu ne bu am 5 ans yi am na boo xam ne 5 ans lay am jëm suuf comme 2 ans trois ans 4 ans waaw day am waaw. métier bi métti na wala méttiwul. waaw non métti moom foo ko foo ko natt rek weesu na foofu parce que liggéey ay jigéen ku la wax dafa dafa neex da koo xamul. waaw xëy na nag ki ci nekkul moom bu toolee bu toogee moom euh, comme vers du euh, vers du moom moom bu ci nekkee hors mooy bu nekkee foofu day yaakaar ni moom peut-être affaire bi dafa yomb mais affaire bi ruq buy sedd amu ci comme yeneen liggéey yi rek loo xam ne day may xaalis daal ku ne la day yomb reex lu ko neex. waaw jamono bi ñuy door a jàng euh, métier bi di ci door a dugg métti woon na trop parce que góor yàlla di jànkoonteeg jigéen dafa xawoon a métti xam nga mais fi la mesure ngay dem nga dem ba màgg ci métier bi xam nga da ngay mature seen côté yëpp. dootoo leen déglu lu ñu mënti wax yow leen intéressé mooy client bi lu ko neex mais li ci des intéressé la daal lu ñu la mënti wax da ngay tenir parce que yow yaa bëgg te comme client mooy roi yow yaa war a fexe li neex client bi à tout moment nga di ko def daal ñun boo ñu waxee lu ñu naq dañ koy encaissé te muñ ko te du tee beneen yoon it boo ñëwee dañuy waxtaan ak yow kaf ak yow réew ak yow. parce que problème mënul ñàkk parce que ñi la miin ñoom ñooy ñëw ci yow ak la xamul ak ñi ñu la booleel kon donc étape yooyu dafa xaw a parce que moom mooy waral nit ñi dañuy dajaloo fii ku nekk naan la diw diw diw ceer ceer ceer ceer fekk na ndeysaan mais yaay am rek maîtrise parce que yaa am maîtrise doo saaxa kenn doo jànni kenn parce que place yi bari nañ fi koo fi jànni mu dem feneen parce que xaalisam la yor mayoo kenn mooy li may wax chaque jour rek mooy yar bi surtout man dama yaru ci côté boobu du ma saaxa client du ma jote client du ma ko wax lu ko naqari ndëgam soob na yàlla parce que nit dong laa nag mënul ñàkk damay juum jàmbaar amul ku suñ borom dimbali moo fi ne bu ñëpp bàyyee place ñëw ci yow da ngay xam ni du sax njàmbaar yàlla la voilà mais tax dangay wone dangay da ngay dégager benn responsabilité boo xamante ni da koy indi parce que il faut nga wane benn caractère boo xamante ni tamit da ngay xam ni man nit ku diñ laa ci kër laa jóge ñi may seet ci kër lañ jóge man damay wax clients yi may seet ñoo ma gën parce que am na ñoo ne xaw ma seen kër kon man yar moo ma war man man li ma war lépp lu mën a xew rek événement quelques jours la day jeex mais lépp lu ma ci wane damay wane yar ak teggin ba ba jeex nag loolu mooy li ma war moom laay def. waaw client yi di leen wax ne ñun li tax ñu toog fii pour ñoom la. du ñu jaay mu client rëy kooku yàlla natoon nañ ko duñ la jaay parce que ñoom ñoo ñu teg fii ñoom ñoo ñu tax ñuy am xam nga di leen wax ne place bi seen place la bu kenn ragal ñun tooguñu fi ngir alal client boo ñëwee yoroo yàlla xam na ne buñ la ràññee ci place bi wallaahi lazim boo ñëwee dañ lay defaral te duñ la laaj benn dërëm barki yonte yàlla Muhammad parce que tamit nit ki da ngay sàmm kóllëre tey kii ñëw di la indil bés moom mooy ñëw ñàkk xam nga beneen bi sopp mooy ñu teel a ñëw ci événement bi. xam nga parce que tamit nit nit rek ngay mën a doon munoo satisfaire ñëpp sa àdduna ñii dina nga leen defal lu neex ñii doo leen defal lu neex xam nga di leen wax ne ñu teel a ñëw xam nga teel a mobiliser wu defar ba mu baax ñu defaral leen comme ni ñu ko bëggee lépp lu ñu bëgg nag am na fi nag incha allahu rabbi jaratul ñuy jéggaani fen lépp am na tëngeej waaw noonu la demee daal. <laughs> waaw mais xam nga jigéen ñi am na ñoo xamante ne dernier moment moo leen arrangé parce que dama koy wax chaque jour parce que nit ki munoo xam li mu nekkee këram. ak fu muy jëlee xaalis bu mu la fay xëy na ay ñoom tamit ñoom dañu am ay jëkkër ñun ñi dañoo yor ay jabar dernier moment ñun dañuy am xaalis duñu jox suñu jabar yi dama koy xoolee foofu moo tax yooyu du ma ci wax mais da di événement moo demee tamit quoi nit ku nekk heure bi mu am rek boobu lay jóg am na ñoo xamante ne ñoom dernier moment moo leen neex parce que mais mënoo généraliser ñëpp mais am na ñoo xamante ne dernier moment la am xaalis pour ñëw parce que ñun boo toogee tamit dëgg neexul parce que boo jugee sa kër ñëw fii da yor sa xaalis bëgg defaru ñun tamit dañuy bëgg a defar tamit lu mu gën rafet rafetee ñun saa bu ñu la gisee rek baax na mais lu ñu gënal moom mooy booy di am na ci ñoo xam ne mën nañoo teel a ñëw nañuy teel a ñëw rek loolu mooy ñëw daal la ñu teel a ñëw. mën teel a ñëw ñoom nañ teel a ñëw mais am na ñoo xam ne tamit mënuñoo teel a ñëw parce que yow mënoo xam seen situation lan la mais am na ñoo xam ne am nañ situation bu baax te mën nañoo teel a ñëw nañ teel a ñëw ñoom d'accord yéen daal yéen fi ba n'importe quelle heure n'importe quel jour heure bu nit ñëwee rek dina la fekk nga defal ko macha allah li mu bëgg. xam ku ne xam ne man événement xàmmeewu ko man xàmmeewu ma événement ak lu dul événement ku ma xam ku ne xam ne ni ma doon liggéeyee démb noonu laay liggéeyee tey du ma bàyyi ci kàttanu yàlla parce que yàlla moom moo yor doole moom la ñuy ñaan mu kàttanal ñu yeggal événement bi ba pare nag ak suñu mbokk tatouage kat yi ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di ziar ku ci nekk luy sa wërsëg suñu borom def teg ko ci sa loxo yàlla suturaa la loo ci yaakaar lu ne yàlla bu mu tas ci barke Seydina Mohamed moom moo ko mën yàlla na ñëpp ay ndaw lañu danoo ñëw fii ci milieu bi di wut si rek mais du dara dañoo daje fii rek noonu rafetoo moom mooy li am solo client sama client mooy client keneen ak keneen ak keneen ak keneen waaw loolu mooy dëgg waaw sama client mooy ñëw ci kii mooy ñëw ci kee mooy ñëw keneen ak keneen moom mooy ñëwaat ci man moo tax li ma war rek mooy mooy mooy mooy rafetal moom mooy mooy li ma war waaw surtout boo nekkee nit koo xamante ni macha allah waaw xale yi dañ la wuyu il faut ngay rafetal xam nooy waxee ak ñoom loolu mooy liy dëgg. gis na yaa ngi liggéey fii ci place Nar Fashion yow euh, ban poste nga fi occupé. Euh, man daal mën naa ne lépp laa fi voilà pose ngay def cils wala ongle wala ngay créer. man ongle laa def waaw. yan façon ongle damay def simple damay def permanent. simple bi ñaata. simple bi 2000 lañ koy defee. permanent bi 5000 7000. man damay def euh, ongle ak cils. koy def pose kat nga daal. may pose waaw. yan façon ongle ngay def. permanent am na simple am na. permanent ba ñaata la. 7000 ba 5000 francs mooy permanent simple bi 2000 la. xale yi yan yan la ñuy gën a taamu ci ci euh, fête bi ak yan couleur la ñuy gën a bëgg couleur yi nekk tendance instant bi lan la. instant yi moom xale yi moom dañoo jël tubaabee dañuy soxla fringe bi dañuy soxla couleur yu rafet noor daal. ak été bi nii. ak été bi nii dañuy soxla couleur yu doy waar parce que couleur yu doy waar la ñuy def waaw. rafet. lu garaaw kay nee naa la fii mooy naar fashion fii moom boo bëggee jongama rek say loxo baax sa kanam baax rek ñëwal fii. am na cheveux bi am na am na fossile cheveux bi 5000 la commencé waaw fossile bi 2000 lañ koy defee. yomb na de. yomb na ba de macha allah kon xale yi dégg ngeen bu baax ñëw leen fii si naar fashion fii liggéey bi maa doo leen am di faral am ay problème ndax comme que ndaje jigéen la te yow tamit jigéen nga est-ce que parfois doo leen ci am ay problème non non ñun ñëpp ay jigéen lañ te ñun ñëpp benn lañ te ñun suñu patron moom moom yàlla daa def ni dafa wàcc boppam dafa mel ni ñun dafa baax kon duñ mën a am problème parce que dañu xool ci moom bu ñu geesoo xool ko rek kon duñ am benn problème problème du ñàkk na bu ñu làmmee ñoo dëkk na te dañuy laalante mais du par du bëri noonu bu ñu xësee ba pare pare nañ ci fi ñu amee problème foofu la ñuy àndaatee. non non duñ am ay problème wax fa yàlla parce que ñun ak suñuy client xamante nañ bu baax te yàgg nañ di liggéey. organisation bi fii nan la ku ñëw rek da ngeen koy defaral wala dafa am ay ku gérer ticket yeeg yooyu. waaw événement bi day am ku gérer ticket bi waaw. bu dul événement bi ku ñëw rek dañ ñëw da ngay ñëw wax li nga bëgg toog ñu defaral la ci niñ ko bëggee. lan ngay wax xale jigéen ñi ñu bàyyi nga tàgguwaal joxe sa mot de la fin. xale jigéen ñi daal dama leen wax ñu ñëw ñu teel a ñëw ndax ran bi day saturé ñu teel a jënd seen ticket. parce que permanent yi doy waar yi ñu commencé def dafa garaaw crayon yi ñu commencé def dafa garaaw ndax fii mooy naan fashion boo bëggee crayon yu baax rek original laa def nii ku ci bëgg nanga ñëw rek ñu defaral la. original. Mhm. mooy avis euh, bi wala. de laa laal nii. Mhm. ragaloo de. non mosuma ragal. jeune laa nee kon du ma ragal. du xëy di crayon wu daal comme man di sonn rek te xam ne mënuñu dara da dalay wàcc daal. damay wàcc na ma instant bi parce que damaa bëgg ay crayon ak si dama ko yàgg bëgg naan moo tax ma def sama crayon benn yoon na xam ne rafet na de macha allah. merci beaucoup xam ne damay bili ci événement bi rek ndax clients yi mën a ñëw. waaw di leen wax nag ñu def gaaw teel ñëw ñu defaral leen lu rafet comme d'habitude. bañ am daal benn problème xat loo. problème waaw. yéen ñi dañoo bëgg dernier moment de. waa gis nga. mais waa di leen wax nag ñu gaaw ñëw tax ñun ñu ngi nii toog ñoom rek la ñuy xaar ku ci ñëw dina la defal li nga bëgg comme ni niñ ko daan defee rek. te ñoom di sant sama patron bi ndax bu dul woon moom kon li ma mën lu ma ko mën. ndax may na ma jàmm ci palaasam nit moom jàmm rek boo ko amee fi nga nekk rek baax na te jàmm rek lañuy ñaan maa ngi koy sant di ko gërëm di sant ñëpp waa di wax na xale yu teel a ñëw ndax ñoo ngi fii nga teel a ñëw ñu ngi marché Tëngéej waaw ku bëgg rek lu rafet daal teel a la ñëw ñu defaral lu tubaabe lu garaaw. waaw maa ngi leen di jaajëfal yéen aussi di jaajëfal sama patron di nuyu ñëpp di wax client yi aussi ñu ngi leen di xaar.